أحمدية ISL Dine الجمل أحمدية لا فيزيون فيتور إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً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 الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم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 وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناكم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهًا لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن الظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته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 الحمد لله الذي أظهر من نسخة حقائقه الذاتية الكمالية نقوش العوالم والأعلام وأخرج من نون الجمع الذاتي أنواع الحروف والكلمات والكلام انزل من مقام الجمع والتنزيه قرآنا عربيا من غير ذي عوج وجعلها معجزة باقية على وجه كل زمان ساطعة البراهين والحجج والصلاة والسلام على من هو فاتح باب الحضرة في العلم والعين واليقين سيدنا محمد الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه المتخلقين بخلق القرآن ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الزمان أما بعد جنة وبني سنتي برم سبحانه وتعالى التي أنمت صلى الله عليه وسلم jaarale ko ci ñooñoom ak saxaabaam ak taabiin yi ak taabic taabiin ñaan yàlla mu nangu ñu salaatu ak salaam boobu te daxañul nag si miisaanu xasanaatina dellu siwaat ci duruusun ramadaniya sayru maa alquraan fi shahri ramadan ñi tolloon dem ci suuratul isra tolloo woon ak aaya téeméer ak ñeent maanaam diggante téeméer ak ñeent ba ak téeméer ak juróom diggante aya cent quatre jëm aya cent cinq borom bi di wax ci alquran ay bi ñu bëgg a jàng ni mu ko wàccee ak li tax bokk na li tax mu wàcce ko sabab yi tax mu wàcce ko mu ne wa bilxaqi anzalnaahu wa bilxaqi nazal وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا من <clears throat> وأنزلناه نيوكي نيوكي من القرآن بالحق شدق نيوكي واتي موي واختيري وخمني دفا نيو ñëw di dox ci dëgg làmboo lépp loo xamante ni ak dëgg la te sori lépp loo xamante ni wa bil xaq ca ci dëgg it nazal nazala ci la wàcce dañ koo wàcce ci dëgg moom mu ñëw wàcce ci dëgg yaa ngi dégg alquran dañ ko wàcce ci dëgg moom mu ñëw wàcc ci dëgg yoon wiñ ko tracel foofa la jaar di fa jaarale nit mu ne nag yow yonant bi wa ma arsalnaaka yónni wuñu la illaa mubashiran lu dul ngay aji bégle wa nadiran ak di xuppe mooy di bégal nit ñi ci ni ñuy jege yàlla ci dugg aljanna ci jàpp ci siraatul mustaqim ci di wettali ko yàlla ci di bége yàlla waaye muy waar nit ñi pour ñu xam kàttanu yàlla ak dayoom ak i mbugalam ëllëg mu ne wa ma arsalnaaka illa mubashiran wa nadiran wa qur'anan wa yónne wuñ tamit ak ak alquran quran ak alquran goo xam ne farraqnaahu ñoo ko teqale détaillé ko li taqra'ahu ngir nga di ko jàngal ala naasi ci nit ñi ala muksin ci yoon wu teey alquran ñoo ñoo ñoo yónne wuñ dul ngay waare ak di xuppe waaye biñ la yónne it ñu accompagner la ak ngay ko nga di ko jàngal sama jaam yi ci façon woo xam ne wu teey la ñu di ci gindeeku dégg nga ala muksin moom it wa nazzalnaahu ba tey ñu ngi ko wàccee tanzilan akug wàccee nga nazzala alquran fu mu waxee ne nazzala rek kooku téere wàcce googu alquran la concerné bu ne anzala nag tawraat la ak injil bu ne nazzala la cay topp mooy tanzil tanzil mooy loo xam ne du ñëw ci benn benn muhla day ñëw tey ñëw suba toog ay fan ñëwaat toogaat weer ñëw hakada noonu lay wàccee ba mat vingt trois ans moo tax diir bi yàgg parce que tanzil la wàcce wàccee tawraat ak linjil nag yàlla def ko mbambasal rek yebbi ko ci ñi nga xam ne ñoom la ko doon wàccee qul waxal yow muhammad waxal jaami ne leen aminu gëm bihi gëm yéen ko aw laa tu'minu wala gëmu leen ko seen affaire la موخ گم گین کو ولو گمولین لولو سین افیر لا واي ان الذين لما ما خم دال با خم کو مودين وورن ني نيغا خامني اوتو العلم جوخوف نان لين جوخون نان لين خم خم من قبله لجيت القران دي واتي ñoña de ñeleen jitu nga xamni joxon nañ leen xam xam avant alquran di wacc idha yutla alayhim bu leen daan jangal aya yi buñ daan deg manam li nga xamanteni modi aaya ya wàccoon ca tawraat ak linjil nga gis yaxiruuna dañuy daan rot dégg nga lil azqaani ñeer seen doq yi mooy dañuy yoor seen doq yi sujjadan di sujjat kon mooy boroom xam-xam yi nga xam ne mooy ñi jiitu ñi nga xam ne xamoon nañu dëggantaan lan mooy wax yu mooy lan بني دان فك وحي بران واتي تي بيانانتو دنج دان رات رات سن بوخي دم تي سوف دال دي سجود كوم نك يين موغي واتي سن بير يين دو نين كو گام يين خام سن افير لا من ويقولون بني دان سجود دنج دان واخ سبحان ربنا تدو نني سونو سلوك بروم نينا ان كان لم نكن وعد ربنا رانديفوك سونو بروم بي بي لا فعولا دي لي نوي moy luy am la kenn amul ben sik sakane dina ñëw motax mu dolli ci lamul qasam gi kenn manul fexe ba bis bobu di new randi bu bobu mané ne khiruna yaxiruuna dañuy rot lil adqaani dañuy dañuy rotal lil adqaani ñeer sen doq yabkuna di joy wa yaziduhum di leen dolli wax yu boobu di wàcc xushuan ak toroxlu ñoom noonu lañ ko daan taataane moo tax ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne tadarra'u wabkuu fa inna alsamawati wal ard walchamsi walqamari wannujuma yabkuuna min xashyati illah mu ne na ngeen i toroxlu te ngeen i jooy ndax asamaan ak suuf ak jant ak weer ak biddéew yi ñoom ñëpp dañuy jooy jamono ju ne ngir ragal yàlla gi nekk ci ñoom dañ ciy jànge mooy li nga xam ne moo di toroxlu ak sujjoot loolu mbiru ruux la toroxlu ak sujjoot mbiru ruux la li nga xam ne moo di jooy dégg nga bu ne tawaadu kan taw xam dafa am toroxlu cër am toroxlu xol toroxlu bi nga xamanteni toroxlu xol la koku mbir ak sujjoot koku mbir ruh la li nga xamne modi joy ak toroxlu cieur koku mbiru yaram la legi nak ñet ñen ñet ñent yeb nga la jullit bi di mëna dajale bu fekke ne dafa bëgg bëgg jébalu ci borom motax ñu wax naan dañ ko yebal ci yaramu doomu aadama pour mu ñew pour dajale pour jox ko li nga xamne moy ñenti ñenti vitamine yi moy torox lu cieur torox lu ruh ak di joy ak di sujotal yàlla yoy yi dafa bokk ci limuy liggé ci yaramu doomu aadama ay vitamine la yo xamni dafa lu muy def ci yaramu doomu aadama moy lan vitamine ruhani la nurani mo tek ci ne qul allah aw idu rahman ayyamma tad'u falahu asmaul husna aya bi ñëw nag nettali na yahud dañu waxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow de danga danga neew li ngay wax ar-rahman bari na lay deg ngay tudd al allah te allah dafa bari lu mu ñew ci tawrat manam li ngay tudd Rahman dafa dafa neew te bari li ngay tudd allah ar Rahman dafa ñew te allah dafa ñew ci tawrat yalla daldi wacce wàcce bi di len xamal ni bu ngeen ñaan ñaan nga ngeen tudd ci Allah tur bi direct bismillahi alazim wala ngeen jaare ko ci beneen sifaam muy arrahman ba tey baax na ci turam ci sifaam yi la qul mu neel neel yow waxal muhammad ne leen udu llaha woo leen yàlla ñaan leen ko ci turam googu di allah mooy ismu zaati aw udu arrahman wala ngeen ñaan ko ci turam googu di arrahman ñi ñaan nag gis da nga naan yaa arhamar rahimin parce que arrahman mooy sifoog yàlla bi nga xam ne moom moo placé wu ca arash sifoog yàlla gi placé wu ca arash mooy arrahman loolu moo tax booy ñaan ay xéwal di ñaan lu jëm ci wàllu jamono yooyu ngay tàllal sa loxo naan ya arhamar rahimin buy tëj ñaan gi di nga naan ya arhamar rahimin ya rabbal alamin parce que rahman googu foofu la ñuy tàllale loxo moo tax waaye du jëmm yàlla ji la ñuy daj foofu yaa ngi dégg aw yad'u arrahman wala ngeen ñaane ci arrahman wala ngeen woo ko ci arrahman ayyamma tad'u bu leen ci bu ngeen ci wooteel falahu nam da ngeen xam ne moom de mooy boroom al asmaul husna boroom tur yu rafet asmaullahi al husna di 99 non bu ci nekk mën nga cee woo yàlla waaye bu ci nekk nag am na ci sens boo xam ni ci lañ koy jëfandikoo hakada mun loo di ñaan yàlla xéwal naan ko yaa muntaqim xam nga loolu àndul parce que muntaqim moy kuy fayu mo de ko nak wala tajhar bul di beral bi salatika sa julli waaye solaat googu ñu ne day ñaan lay tekke ndax a solaatu mooy ñaan ci luxa ci langue arab moy ñaan bu de islah nak dañ koy tekke julli bu de ci islahul dégg shar'i wala tajhar kon bul di beral bi salatika sa ñaan wala tuxaafit biha bu ko di bu ko di tamit bu ko di beral waaye tamit bu ko di moo tax yenn mag ñi buñ daan ñaan bu ñuy ñaan da ngay gis ñi jabatu ñi ngi jabatu nag di koy dégg suba waaye doo xam li ñuy wax lan la mu ne wabu taxi da ngay sàkk bayna dalika ci diggante yooyu sabilan akuk yoon diggante lan mooy diggante beral bi ak yelu bi diggante beral bi ak yelu bi nang ca sàkku lan nang ca sàkku ak yoon yoon googu mooy lan mooy intermédiaire bi nga xamante ni moom dox sa diggante ak sa borom dégg nga wa bitaxi bayna dalika sabila wa qul الحمد لله الذي ما يسنت يلا ميغا خمني ولا غني الحمد لله الذي شانت نيالنا يلا ميغا خمني باتاي لم يتخذ امول ولدا دوم من غني لم يتخذ جابول ولدا دوم موي امول دوم ولم يكن له ولم يكن تامل له نيالكو شريك بن وجو في الملك تشنغورم غورم bokku ko kenn moom cundub la mooy càppaacolik walam yakun te nekkul lahu ñeel ko waliyun benn kilifa moom suñ borom subhanahu wa moo yilif ñëpp moo tiim ñëpp moo sëpp ñëpp dégg nga kon walam yakun lahu déet ko ñeel min azulli ci benn kilifa اسولا ولينا في بن كلفه من الذل بو خامني موكاي تيم بو خامني داي توروخ لو سي موم ديديت يالا تيم نيب سيب نيب يور ليب ييت نا كون نا وكبر هو تاغا كبار كو تاغا ماغال كو تكبيرا اكو ماغال موي دي واخ الله موي دي واخ الله اكبر كبار يالا دي ماغال يالا بو خولي ايه بي دانكا ليغا خامني مودي باقيات الصالحات خاوني تي генي ñaata turu yàlla moo ci daje allah a ngi ci arrahman a ngi ci dégg nga alwaliyu mu ngi ci te bu ci nekk rek am na ci lu muy liggéey hakada boo demee ci mawla alfannaari rahimahullah day wax ne li nga xam ne moo di ismul jalaala muy allah allah allah Ismul jalala moom ixtisaasan wadiyan wa isticmaliyan daf di li nga xam ne mooy tur wi nga xam ne c'est kalimatu Allah c'est spécial yàlla rek ko jago moo tax nit buy tuddee yàlla buy tuddee doomam gis nga bu Ina yàlla euh, masalan Allah Abdullah mais doo dégg ma ku Allah Allah doo dek. pourtant di nga dégg kuñ tuddee Abdurrahman ñu dagg tur bi naan ko Rahman wala Karim wala Aziz wala Salaam dagg abdu gi mais kuñ tuddee Abdullah ñu ko doo ko dégg mukk wolof li muy mën a yàq yëpp moom du ko dagg de da ko yóbbu ne ko Ablaay yam ci Ablaay ga waaye lax ga moom du ko du ko du ko ko beral mukk buñ ko ko wooyee rek musiba am tali gis kon yàlla rek ko jega moom moom moom moom kalimatu ismu daat moy kalimatul jalala li nga xamanteni moy rahman nak amna ci yeneen jëfandikoo way yo xamni man na ci ñëw lolu motax bo demé imam suhayli mu don wax rahimahullah ci téré bu ñu wax at tarif wal i'lam mo ne ki nga xamanteni moy musaylama musaylamatul kadhab denga nga xamanteni mo dan moo daan woote bokkoon na ci liñ ko daan wooye na ci lim daan tudde baatu arrahman dégg nga bokkoon na ci lim daan tudde baatu arrahman li ci it doon nañ ko tuddee arrahman moom ci boppam moom musaylama waaye gis nga baatu allah doo gis mukk ñu wooye ko nit ñi nga xamante ne ñooy ñenn jaam yi nit yi nekk ci kaw suuf fetteer yu fetteerlu daan jéem a tuddee seen bopp ismul jalaala boobu yàlla da leen di fàggagal du leen may ay cersa dégg nga loolu moo tax boo ñëwee ci tawil ba tey boo ne qul idu allah aw idu rahman day junj ne yàlla subhanahu wa taala dégg nga li nga xam ne mooy ismu zaati moo ko jago rahman bokk ci sifam boo ne ayyam ma tad'u mooy tur tur wooyu boo ca mën a woo rek ak ci melam yi rek di ko daj moom yàlla ndax moom mooy borom asmaul xusna borom tur yu rafet yi kon woo leen ko ci ak bu ngeen bu ngeen ko ci mën a woowee rek ngeen woo ko ci booy ñaan nag bul di yëkkati sa kàddu ngir ngistal kooku mooy wala tajahar bi solaatika bu dee ci tawila ah, ngir ngistal na ko suufeel waaye boo ko suufeel ko suufeel ba kenn du ko dégg ngir nga bañ a xañ ñeneen ñi li nga xamante ni moom mooy yoolu ñaan gi وانا وابتغي بين ذلك سبيلا ما نغا تي فينال ليغا خامتيني موي يونو فراتاي جوليك فراتاي ديكو جولي جي تي مبولاي موي وابتغي بين ذلك سبيلا ودي تي تاويل وانا وحل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا بوكو فيكون كمال عنايته وعواطف احسانه مخصوصا بولده ويحرم ويحرم عبده معه بوكو ديفاي ولا يقول لم لا لم يتخذ ولدا mooy li nga xam ne mooy inaaya gi yàlla gi ko yàlla defal dégg nga ak ñeewante loola mën a rogalaat ci njabootam ci ngeen ci ci nga xam ne moo ci ci mooy ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala suratul isra daal di jeexa ah. ñu tàmbali suratul kahf al kahf nag moom lañ naan caverne ci tubaab mooy barab boo xam ne dafay nekk ci suufu montagne nekk ñu wolof di ko tuddee aw xur nga xam ne day mel ni day yaatu nga xam ci biir xeer la dëkkuwaay lay doon ci biir xeer lañ tuddee al kahf saar bi nag li tax ñu tuddee ko kahf mooy ay jaam yàlla yoo xam ni dañoo nekkoon ci benn barab diggante yont yàlla mu isa ak seen jamono tolloon ci sept ans ñoom ñu ne woon dañuy jàmm li yàlla sant Seydina Isa doon jaamu nekkoon ci dëkk boo xam ne ay yahud lañ woon ñu doon leen tortile di leen teg ay coono ba ginnaaw ga ñu daw dugg ci kahf googu dana ko leeral ci biir saar bi moo tax ñu tuddee saar bi euh, dégg nga al kahf googu saar bi nag ñëw toll ci téeméer aaya euh, ak fukk ak benn mooy kafi moo tax saar bu bari ay secret la moom suuratul kahf rawatina ci wàllum ñaan pour protection am na ci doole lool surtout ci aaya yu njëkk yi mu ngi wàcc makka nag foofu la saar bi wàcce am na ñu ne saar bi yëpp mu ngi wàcc makka ba mu des aaya bi yàlla naan wasbir nafsaka maa alladina yadcuuna rabbahum bilgadaati wal ashi suñ boroom ne bismillahi arrahmani arrahim يعني الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا من الحمد چنت لله الذي ين يلا ميغا خمني أنزل ما واتي على عبده تجاما بيدي أنتبي صلى الله عليه وسلم الكتاب تيربيد القرآن ولم يجعل له تدفل ولم يجعل تدفل له نيل تيربيد mooy deful ci téere bi lenn loo xam ne iwajan lu jàng dëgg la lépp dëgg la li ci nekk yëpp dëgg la li ci nekk yëpp njub la li ci nekk yëpp gindeeku la kon nag téere bi moom xayiman dafa doon lu dëgër tege ci yoonu siraatal mustaqim téere bi daal di ñëw bokk na ca li yundira ngir mu waar yéefér yi ñi nga xam ni gëmuñu yàlla ba tarug mbugal mbugal gi nga xam sharigan gu tar la da nga xam min ladun dun ko mu ngi foofa ci moom ca yàlla wala bokk na ci li tax téere bi wàcc lu ci ne rek amna circonstance bu ne ak lamuy wax ak lamuy waxal ak ñamuy waxal wa yubashira muy bégal moom téere bi ba tey almuminina jullit yi alladina nga xam يعملون ني جيف الصالحات جيف يو باخ كون امنا جوليت دول داف جيف يو باخ لي تخ مو سيتي بريسيزي جوليت يي جيف جيف يو باخ مولين بيغال ني ان لهم نيوم دي دينا ام اجرا يول و خامني حسنا يول و رافر لا لك يوم القيامه يعني ان شاء الله بولي. waye ñom duñ ca yem maakisiina way sax lañu fii ci xéewal yi ci naim ga abadan ba faw xewal googu yàlla di len defal ëlëk te lay koy moy yool yañ ci jëlé ba dugal len aljanna ñi dund ci xéewal googa maakisiina fii dañ fay sax abadan ba faw baatu maakisiina fii abadan gi de baxna ci yenn sëriñu dara yi ak ñi nga xamni dañoo yore ay gone yoo xamni duñu tok ñu faral di len ko jangal seen bop juroom ñaar yoon yalla dana leen defal ñi ñu tok ta dal te duñuy far di déplacer wu lu bari mu ba nopi wayu zira muy war alladheena ñi nga xamni xalu dañoo wax ne اتخذ الله يلا امنا ولدا دوم موي نان يلا امنا دوم ديكو اسكنل سيدنا عيسى على نبينا عليه السلام كون القران لولا بوكنا تي لي تخ مو واتي وتخ ينتبي صلى الله عليه وسلم بقول لك يوم القيامه داي تخاو تي كانو يلا نانكو امتي امتي امتي امتي kullu nabiyin yonent bu nekk nag da ngay taxaw naan nafsi sama bopp sama bopp laa taal moom mu taxaw ci kanamu yàlla naan ummati ala yawm alqiyam sama xeet wi sama xeet wi loolu garaat boobu moom rek moo ko am moom sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy yàlla ñoo naan yàlla dafa am doom dis ko di ko askanale sayiduna isa maa lahum ñoom de amuñu به تي لي ني واخ من علم تي بن خام خام خامو تي دار لي ني واخ امول بن بروف امول بن لاي تيغون كو لي تي لن لودول تي بكال يالا بو فيكون نه دافا ام دوم بو امي دوم دوم جوجو نورمالمون دافاي دون يالا وارو ملني يالا وارو دي لك دي نان boko tege دوم ne dom ji don nekk gim nek doom mo moo tax mu yobbu ko asaman mais bim ko indee fi doon lek di nan di def li nit ñi def kon koku mënul askano ci yalla yalla ëpp na lol bu bu doon am doomit du mat yalla yalla bu doon am doom day mëna am mbokk dañ nan yalla fi la jóge ñi ñoy ay mbokkam ci ras wi la bok xet nangam la bok bo topé askanam day dem ba nangam parce que doom ji ma am moy tax boo amee doom di nga am soxna du dëgg ah hakada moo tax yàlla ëpp na loolu ci wàllu tawxid dañ koy jàngale ëpp na makaan ëpp na jëmm ëpp na doom nag ndend moom yemul dara moom yàlla rek càppaculi subhanahu wa taala li xew ci àdduna yëpp mën nga toog ne waaw lenn lu ci ne dafa am lu ko defar lépp lu am rek am na lu ko amal nga dellu ci asamaan dellu ci suuf dellu ci géej dellu ci ngelaw jant wi jant wi weer wi bi déew yeeg yëpp d'accord nga ne ñoom ñëpp dañoo am am nañ lu leen amal li leen amal kon mooy yàlla kon yàlla moom tamit am na lu ko amal bu fekkoon ne am na lu ko amal kon du am kàttanu mën a contrôler asamaan suuf bi kon la ko amal a koy ëpp doole du dëgg li amal moo koy ëpp doole moo koy ëpp pouvoir li ko amal mën na ne asamaan ak suuf du taxaw moom mu ne asamaan ak suuf day taxaw kon musiba day am loolu àndul sax boo ko delloo ci philosophie ba dellu ba dellu ba xalaat ba pare da xam ni mënta nekk yàlla mënul bokk mënul bokk ak dara moo tax mu ne maa lakum de di leen ñeel bi ci li ñuy wax min ilmin ci benn xam-xam moo li ñuy wax amuñ ci benn xam-xam wala li abahim du caageenu seen bàyyi ko kaburat Akkuna garaawuna gaburra garaawuna kalimatan kaddu gi nga xamni taxiruju mu ngi gennimi naafu waayee fi ga'eef ci seen gammachi garaawuna wayi. Te ñoom kat inni yaqquli woon a waxuu ni lennu kat illaa kadibanii dhufan yi wax darurra dhucu dheeg. Ay biin ak yinoon tibbii yaala di waxaa musaala wasalaam bi ci tokkum muy mu gisee yeefferii. di woote beneen yàlla burul yàlla subhanahu wa apare après nanguwuñu gëm yàlla mu metti ko mu di ko jàmbat di ko tiislu yàlla daal di wax ak moom ne ko fa allaka xëy na yow baaxiun nafsaka yaa ngi alak sa bopp maanaam majaasan masalan yaa ngi sonal sa bopp ala atharihim ci jeexitug seen weddi gi manam seen weddi gi daal daf laa dépassé fi mu ne li li nga naan man daa diw mbiram bi mu ngi may bëgg a dépassé dafa la yonent bi tolloon mu ne in lam yuminu ci bu ñu gëmul bi hada al xadit ci wax ji yaa ci mettitlu yaa ngi koy yaa ngi sa bopp asafan ngir am njàqare ak metit. waaye nag yàlla mu ne ko inna naka ñun nag ñun yàlla jacal naa ñoo def ma jacal naa ñoo def ma ala ardi ci li nekk ci suuf yëpp zinatan mu diktaar moom yàlla subhanahu wa taala moo def lépp li nekk ci kaw suuf zinatan mu diktaar lahaa ñeel àdduna muy garab yi dégg nga muy jant wi muy weer wi muy climat bi muy géej gi muy dex yi muy déeg yi loolu yëpp taar la ci kaw suuf waaye nag li nab nabluwahum ngir ñu nattu leen ay ayyuhum kan ci ñoom axsanu amalan moo gën a rafet jëf kon loolu test la ci ñun maanaam li aaye bi di jàngal yàlla bu ñu joxee ñu bu ñu joxee xéewal ñu am ci ay privilège man fu ñu bëgg a dem dem fa yor jet privé wala yor bato wara am benn kër ci biir géej gi dégg nga nekk yor ci ay dëkkuwaay yu rafet yor warwaay yu rafet am alal jurul jeex kooku yàlla mu ngi lay natt ba xam yaa ngi teg mbir ma fa ko war a teg ndax dinga ko teg fang ko war a teg mooy taxawu ci jaamu yàlla yi doon seen mbindaan mooy di leen tarbiya borom alal daa war tarbiya jaamu yàlla yi war a tarbee jaamu yàlla yi warul am intermédiaire seen digganteem ak moom ñu di ko ñu di cogg déedéet moom ma war a cogg miskin yi cogg gi mooy lan mooy di leen wër di leen seet fa ñu nekk di jëflanteeg ñoom ci li ko yàlla sedd jël genn wàll seen genn wàll wërsëg dénk ko ko moom loolu lay jariñ dégg nga wa inna naka nun la jaaciluuna ñoo def maa alayha li nekk ci kaw suuf àdduna yépp saidan moo di pàkk boo xamante ne juruzan bu talli la suuf si bu talliwul woon mais kenn du ci mën a dëkk bu fekkee na dafa ñëw ni mu ni mu suuf si mu doon ay kamb nga dox ba ci yàgg dugg ci kamb goo xam ne day tollook ay cinq six sept mètres boo doxee ba ci yàgg génnaat dem fële fekk fa aw tund kon kenn du fi mën a dëkk waaye moo ko def mu di plat boo xam ni ku bëgg a dëkk boo ñëwee rek da ngay gas rek dugal say say poto dal di kuule daal di yëkkati dëkk ba pare am fitu naan tabax bi dina def cent ans waaw man de études yi ma def yëpp dina c'est sûr que dina dem cent ans <laughs> loolu sa programme la la waaye dëgg la xam-xam la dañ koy dañ koy nangu encouragé ko waaye del bàyyi xel programme mu yàlla subhanahu wa taala mu ne ko nag am xasibta anna asxaaba alkahfi warraqimi kaanu min ayatina ajaban xam nga mbiru asxaabul kahfi bi dañ ko defoon kéemaan gu rëy rëy ndax ñi mu demee bu ñëwee ci histoire bi yàlla di wax ak yonant bi te boobu nettaleegu ko mbir ma nam demee ndax dégg na yahudi ñi di ko nettali rek naan bañ jógee fii Daqiyaanoos dem ci dëkk bi naan Philadelphia nangam nangam nangam mu ne ko am xasib ndax da nga njort anna asxaabal kahfi de ñii di waa kahf mooy ña demoon ca xur wa xunt war raqim raqim gii nag dafa ñaari wute ñenn ñi dana mooy xaj bi ñenn na de mooy alwa bañ doon bind seen tur ya doon defoon ko ca buntu xunt wa waaye loolu nag moo gën a moo gën a moo gën a wér boo demee ci imaamu imaamu tabarani noonu la ko jàngale wala tabari war raqiimi ak alwa ba biñ bindoon seen tur ba ndax da nga ne kaanoo nekkoon nañ dañoo bokk ñoom min ayatina ci suñu kéem te suñu màndarga yi nga xam ne ajaban yu yéeme lañ daal di waxaloog yonent bi kon dafa mel ni daf ko bëgg a tegal histoire bi ni mu demee yonent bi aha di déglu léegi nag mu neen mu di ko mu bu ko koy nettali ci ñoom seen jaar-jaar mu ne ko id awa ba ñu tàppoo mooy ba ñu demee ba mu demee al al al fit al fityatu kuréelug waxambaane googu maanaam ay nit lañ woon yoo xam ni ay waxambaane lañ woon ba ñu demee ilal kahfi ci xuntuma dafa am lu taxoon ñu dem fa dana ñëw ci may bañ a anticiper li li ci suñ kanam fa qaalu ñu ne lañ waxoon mooy rabbana yow suñu borom atina yal na ñu dikke mooy yal na ñu jox min la dun ka jóge ci yow ah, rahmatan yërmande yal na ñu defal yërmande wa hayyi lana te yal na ñu waajalal wala yal na ñu teg wala yal na ñu wàcce min amrina ci suñu mbir gi rashadan ak njub loola lañu ñaanoon ci biir xunt wa

baasnaahum ñu daal leen dekkilaat ñu dekkil leen nag li naalama ngir ñu xam ñun yàlla ayul xisbayni kan ci ñaari kuréel yi axsa mooy ki gën a mën a natt li ma ñeel diir ba nga xam ni labisu sax nañ ko fa abadan ci aw diir léegi nag mel ni kon dafa histoire bi ni mu demee ca njom njom baxtal la ni ngay ni ngay ni ngay bu ñuy film wala documentaire wala yu wala émission da ngay gis buy commencé day ba lañ lay mosal tuuti genre lancement la defal fi sallallahu alayhi wasallam lancement histoire bi avant koy parce que ni ni mu fin yaa ngi dégg kon dafay def benn lancement pour moo xam histoire bi ñu mu demee mu door ko cee mu door ko cee dugal boo demee ci ahlu tawil nag li nga xam ne mooy am xasibta googu ndax dangaa njorto googu ñoom dañuy wax ne ñi nga xam ne asxaabul fi war raqim kaanu min ayatina ajaban googu ñu ne ayat ayat yooyu mooy eh, dégg nga màndarga yooyu mooy suñu rafetal ñun yàlla ak jaam bi suñu rafetal ak jaam yooya fañ leen tegoon ak lañ leen joxoon ak wàccuwaay yooya du lu yéeme lan moo tax du lu yéeme mooy am na ci sa xeet yow Muhammad ñoo xam ne ñoo gën a yéeme ñooña yaa ngi dégg am xasibta anna asxaaba alkahfi warraqimi kaanu min ayatina ajaban ndax dangaa njort ne waa kahfu ak seen alwaba dégg nga ndax loolu da ngaa njortu ne mi maanaam mandarga la yoo xam ne mooy màndarga yi gën a yéeme ci suñu waaye fekk yow mooy xéewal yi leen defal ak wàccuwaay yooyu man naam li muy kawe li muy foor foor xamal ni am na ñu nekk sa xeet ñoo xam ne ñoo leen gën a foor léegi nag yàlla nag ne ko nag naxnu ñun nag naqussu alayka ñoo lay nettalil nabaahum seenub xibaar bil xaq ci dëgg nag yi nga doon dégg noonu ay waxi kasaw-kasaw la ñii dañuy yokk ñii di wañ ñii di sos ñii di créer dégg yooyu yëpp liñ naan israiliyaat yooyu jàppal ne ay israiliyaat rek man nag maa lay nettali vrai bi nag moo tax histoire yi ñuy nettali ci islam yëpp alquran moo tax ñu comprendre ko loolu alquran dana bari ay falsifié yoo xam ne dañ koy falsifié yàlla ne ko innahum ñoom fit fityatun aw kuréel lañu woon woo xam ne ay waxambaane lañ ñoo xam ne amanu dañoo gëmoon bi rabbihim ci seen boroom mooy dañ doon jaamu le sayidna isa doon jaamu dañoo nekkoon ci benn dëkk buñ doon wax Philadelphia Philadelphia dafa amoon benn buur buñ doon wax Doqianos Doqianos moom lañu doon jaamu ca jamono jooja moom moo am yàllay boppam yàlla bi daan nekk ci buntu dëkk ji léegi yàlla bi nekk ci buntu dëkk bi amul kenn ko am sañ-sañ di dugg ci dëkk bi te doo jaar ca moom daal di koy sëggal rukoowal ko door a dem booy génnaatit da dangay jaaraat ci yàlla ga rukoowal ko doog a dem noonu la meloon Daqyaanus moomu nag euh, moom moo dirigé woon jamono boobu dégg nga état maanaam zone boobu dirigé ko jiite ko Philadelphia mu ngi nekk woon ci côté Cham yi ñi am kuréel woo xam ni mat nañu juróom-ñeent ñoom am na ci ñoo xamante ni ay notable lañ dañoo bokk ci famille euh, kii bi famille tuddati royaume am na ci koo xam ni ñu ngi koy wax yel miixa tubaab yi di ko woowe Maximilianos moom moo leen jiite woon moom nag yàlla dal da mu bokkoon ci famille royaume ñi ci dess amna ci ño xamni ay néew gi doole lañu won amna na ci ño xamni nak joton nañ occuper sax ay poste ci gouvernement ba démé nak ba bëgg Maximilianos momu mo tambali won di jibal li nga xamni moy batu wétal yalla né dañuy dañuy jaamu dañuy top diiné Isa mais don ko def ci souf nak mu commencé nak di def politique am di def propagande mais discrètement kenn du ko anam ci ay néeg la nekk ay ruq di waxtaanante di convaincre nit ñi nànk par nànk ñi daal di ci convaincre lu tolloog lim bu xaw a tuuti ñu toog ba fekk foofu Philadelphia boobu dafa am benn gouverneur bu fa nekkoon ñu toog ba jëmmi jamono ñu ne roi ñu tuddee empire bi mooy mooy impérator bi Daqiyanos dafa war a ñëw foofu te fooru ziar ci dekk bi war fa amu ngan gaay ne duñ ko nangu muy ñew fi dégg di nit ñi jamu ko ak yoy ñu ne dañ koy tegal ndëggi sarax ñu tegal ko ndëggi sarax pour bëggoon ko éliminer manam ray ko fofu mu jeex affaire ba dal di fuite nag affaire ba échec ko ba mo ci booba mo échec légui nak gaay yu commencé di len traquer ben par ben nag parce que ki ko def ci def monte coup bi jàpp nañ ko waaye nanguwul feeñal ñeneen ñi gaa nag di laxatu nank par ñu xam ne nag gaa yi yëg nañu ne am na leneen lu ñuy jaamu lu bokk ak seen yàlla ji fi ne ñu leen di traqué di leen topp nag di leen topp di leen di leen espionné ba jàpp ci ñu bari ñi ñu rey leen ñi torti leen jàpp jàpp leen ci biir kaso yi sonal leen lool nag fekk nag ñi ci bopp bi feeñaguñu te ñoom ñu ngi ci biir état bi bañu démé nak ba affaire ba daldi ex exploité nag nak lañ ne nag pexe amatul nak ñu ne dañuy résister nak résister bobu bobu ñu résistance bobu ñu doon def moo ci jur yi yëpp yàlla xamné li ñi woté woote dëgg la ci ñoom mota mu ne wazidnahum huda hudan warabatna ala qulubihim warabatna ñu daldi tak ala qulubihim ci seen xol yi id qaamu ba ñu fa ñu waxoon ne ربنا سني ربنا سني برم رب السماوات موي برمي أسماني والأرض أكسوفي ينن لن ندعو دوتني ومن دونه كل مم إلها تي الله وفلان يدفع ديكلاراسيون بنا ينن إذن بن دفع لولو كون لقد قلنا ورنني كون دي نيون دي وخنانيو loo xam ne shatatan dafa sore ak dëgg bu fekkee ne dañoo wootewaat keneen ku dul yàlla ñun de li ñuy def kon sore léegi nag yàlla mu ne haulaai gaa yooyu de qawmunaa suñuy nit lañ ñun yàlla suñ si suñuy gaa yi lañ bokk duñu woon ay mag nag ay gone lañ woon yu dëgër nag amoon fit mu ne ñoom de ittaxadu dañoo jàpp wa ñoom ñoo wax kon ñoom ahal asxaabul kahfi ñooy wax fi ñoom ñoo ne haulaai gaa yee de qawmunaa suñuy nit lañ suñuy mbokk lañu daal waaye ñoom ittaxadu dañoo jàpp min dunihi ci kudul yàlla alihatan ay yàlla lawla yatuuna lawla yatuuna ay bu ñu dikki woon alayhim ci ñoom bi sultaanin lu teewoon ñu dikki alayhim ci ñoom bi sultaanin ciw lay bu buy firneel ne lu seen yàlla yooyu dëgg la bi sultaanin bayyinin ci lay gu bér ne nag kon faman azlamu kan moo gën a mën a tooñ

dégg nga bu naan bu naan naxnu rek ne ñun day wane ni yàlla subhanahu wa taala moo màgg yaa ngi dégg ay mbiram ni muy doxe ay jëfam ak ay dogalam saaye bu wàcce day mel ni loo xam ni yëfi yëfi mbooloo la daal ci misaal maanaam lu ñu baari dajaloo jëf ko lay xaw a ndiru beneen bi noonu gi day màggal màggal boppam di wan ne moom bokkul ak ñun dégg nga subhanahu kenn la waaye kennam gi dafa daj àdduna moo tax mu naan mu naan inna nahnu ñun am na foo xam ne it rafetlu nañu doomu aadama buy wax di wax ñun ñun aha am na foo xam ne dañ koo rafetlu sharia maanaam nit ki nga xam ne xam nga arab day bañ man man sharia da koo bañ lislaam da ko ŋàññi nit koy wax naan man parce que dem man rek yaa ngi fëgg sa deun dafa melni yow sa jëm ji dafa am importance te wu dara ah. mais bo ne bone ne bo defé dara ne ñu wax ñu dem ñu def moy yow yaa ngi mbir mi ak ñeneen ño xamne ne jàppe ne yow do ci dara fofu lañ ko Mana manam nit dina wax ñun fekk ñun goga pour toutal bopam la ama deg nga am pour doyo dal boppam bu wax nit koy wax ñun nag pour réel boppam kooku moom yaakaaruma nit ki àtteend xel noor xanaa nag waaw kooku moom defe naa ne yàlla rek moo ko sañ subhaanahu wa taala dégg nga defe naa la leer nde aywa moo tax mu ne xaw haulaay qawmuna ñi gaayee suñuy nit lañ waaye ñoom dañuy jaamu kurul yàlla lu teewoon ñoom lañuy woote ñu indi ca lay wu ber kon kan moo gën a mën a tooñ ci fentel yàlla ci fen من هو وإذ اعتزلتموهم بين لين برا يوم لا يوح يوم أصحاب الكف أيجينك وخنا يوم تجمعنا جوجا بين لين برا وما يعبدون تنيوم جاموون إلا الله كدو لي الله أنا ملي دفع خيوان يلا بولي والي كوتي مي واخي يونان صلى الله عليه وسلم في القرآن كون نك نين تاب موين دم ilal kahfi ci xuntu wa bu ngeen demee foofa de buñ leen xatalee ba sonal leen ba torturer leen dem leen foofu yanshur lakum rabbukum yanshur lakum dana leen wesaareel rabbukum seen boroom min rahmatihi ci yërmandeem mooy bu ngeen demee foofu rek da ngeen mucc te da ngeen dajeeg yërmandeg yàlla subhanahu wa taala wa yuhayyi lakum te dana leen wàcce tamit min amrikum ci seen mbir mooma mirfaqan dégg nga akuk noflaay coono yi ngeen dund fii ci dëkk bi bu ngeen demee ci xunt ba da ngeen fa daje ak yërmande yàlla te di ngeen fa daje ak noflaay waaye nag nan lañ fay jëlee noflaay ci xunt woo xam ne doo am loo lekk boobu dàq nañ leen ñu dem ba foofu dugg fa sañu ñu génnaat di génnaat di demaat di demaat feneen parce que identifié na leen ci dëkk bi yépp ba ñëpp wan leen photo yi ñu xam leen mooy arrahim googu bind seen turi nag ne diw la ak diw ak diw ak diw ak diw ak diw li ñuy tuddee mandat dere fu ngeen leen fekk rek jàpp leen leen ku leen jàpp am nga nangam ci neexal ñëpp nag mujj di leen wër ndekete ñu ngi ca biir xurba kenn masul xalaat na tamit gaa yaa ngi ci biir xurba léegi nag gaa yi topp leen ñi nga xam ni ñooy ñoo am wàllu xam-xam ci wàllu seet nit ku disparaître rek yooyu di leen gëstu di gëstu ba gis ay tànk topp tànk yi topp tànk yi ba gis ne ñoom mënuñu dugg fenn furut ci biir xunt wawa te gis nañ ni xunt wi amul bunt amul dara xam nga loolu min ayatillah ci kéemtaanu yàlla yi la bokk nee na nag ba ñu duggee ci xur wa mu ngi continuer ba tey yàlla waxoon na ne mu moo leen sol nelaw ñu daal di nelaw ca tàmbali ga moom ñëpp ñu nelaw ak xaj wañu ñu àndaloon mu ngi ci mu ngi ñëw tuuti bi ñu tàmbalee nelaw xuntu wi xam nga boo ci nekkee te jant du fa tampe maanaam day jur leneen ci seen yaram ak soppeeku man yalla mën na ci mbaxam ñuy dund waye dina am ak coppeeku seen yaram seen dereg yoy yalla tàggat jant bi jant bi am waxtu yu muy dugg tapé am waxtu yo xamni du day day day day so parce que xunt wi jant mënu fa dugg manam tiimu ko buntu gay duggé ni ba paré tàggat ngelaw lo xamni day daw ci bir wi di protéger seen der yi ba du mëna yaqku ci ñoom ñu ngi ci biir nelaw yi mu ne watara shamsa nga gis jant wi ida talaat saay bu fenkee tazaawaru daal di jàngardiku jox leen seen wàll ci biir xunt an kahfihim ci seen xunt woowa bu ñëwee zaatal yamini dégg nga ci wàllu ndeyjoor maanaam bu ñëwee ba cëg bi seen wàllu ndeyjoor mu tampe tampe fa parce que nii la ñu tëddee woon soonu jël seen biir xam nga fii moo gën a fragile ci doomu aadama mooy yi gën a nooy tàppe ci di tàggat der wi xam nga der am na lu muy liggéey jant am na lu muy liggéey ci deru doomu aadama li muy dëgëreeg ak ajacaaju wa ida xarabat bu sowee taqriduhum daal di leen wëlbati daata chimaali ñu wëlbati ko ci côté càmmoñ bu jant bi sowee yàlla daal di ci mbaaxam tàggat tàggat leen ñu wëlbatiku ci nelaw wëlbatiku waat joxe seen wàllu càmmoñ ku soonu soonu côté càmmoñ bi tamit wagum ñoom diir boobu ñuy nelaw yëpp fii fajwatin min hu ñu ngi ci biir digg xuntuwa mu ne dalika loolu nag min ayatillah dafa bokk ci màndargay yàlla yi yi wane ni kenn amul kàttan ku dul moom léegi nag man yahdillahu képp ku yàlla génne fa huwa moom almuhtadi mooy ki gindeeku ba faw wa man yudlil képp ku sànko nag falan tajida lahu falan tajida doo am lahu ñeel ko waliyan benn kilifa boo xamante ni murshidan mën na koo orienté moom teg ci yoon jub ku yàlla namul ci moom jub kenn mënu koo gindi kenn mënu ci dara ku yàlla namu ci moom jubit kenn mënul fexe ba mu sànk kenn mënta fexe ba mu sànq déedéet ci njub rek lay tege moo wax mu am mu ànd ak nit wala mu ànd ak keneen hakadaa ku yàlla namm ci moom wilaayit kenn mënul fexe ba du ko am kum namul ci yow wilaayit kenn mënul fexe ba nga am kenn man mën naa fexe ba man na fexe ba nga am ko déedéet léegi nag mu ne wa taxsibuhum bi gaa yi ñëwee ci xur wi xunt wi taxaw ci bunt bi gis bunt bi gis gis xur bunt bi amul bunt mais ñu xol gaay gis leen gis gaay te dina le ta ñom lañuy set man wa tahsabuhum bo leen xolé da ngay ndort ne ay qaadan ñom nelawuñu da ngay defe dañu dañoo tëdd nii rek di sieste di dallu waxum te fekk ñom ru ruquudun ñu ci nelaw yu xóot waye neena yàlla ñun ñen nee suñu kattan wonu qallibuhum ñu leen wëlbati rek ذات اليمين وذات الشمال bu leen bàyyi woon ñu tëddee benn côté rek benn côté bi suuf si mën na ko yàq dégg nga waaye def leen jël tàggat leen ñi wëlbatiku di droit droite di wëlbatiku gauche chaque jour daat al yamin wa daat al shimal wa kalbuhum ak seen xaj way basitun muy aji tàllalu ziraayihi ñaari ñaari tànkam yi bil wasidi ci watu bunt ba moom foofa xaj ba desoon moom mu ne léegi nag bi gaa yi ñëwee nag ànd ak buur bi ñu ne dañuy ñëw pour jël si leen ñu ñëw pour jàpp si leen ñu ñëw xool xuntu bi gis mu lëndëm kurus maanaam boo fa duggee xamoo loo fa mën a dajeel gaa yi ne nañ dugg rek wut ay torsu daal di taal ba ñu taalee dox tuuti niit gis gaa yi tëdd na buur bi ne acca waay dem leen jàpp leen waay soldat daal di départ wa daw ittalaata alayhim mu ne boo leen boo leen yéendoo la wallayta da ngay wëlbatiku jóge ci ñoom firaaran di daw boo neeti li lay li doo xam fu mu jóge maanaam ngelaw woo xam ne du ngelaw kase dafa mel ni ngelaw lu ànd ak i ki mbëkk yu kenn xamul soldaar daal bi ñeen nii bi ñu tegee seen tànk rek beneen nii bay niit bay bëgg a tegaat beneen peer rek mu fekk leen fa dégagé leen ba ñu génn dali ca xurub ca ca biti buur ba nag bi mbir yi xawee kii ba yi comme moom daa àndoon ak fitna ne faaw mu jàpp leen mu ne mooy dugg bi mu ñëwee ba ci biir ba teg ay matukaay wut ay fett ak yëpp bi mu ñëwee bay bëgg a jege rek yàlla indiwaat mbir ma mu fekk ko ba mu ko jaxasee cele ne nañ génn ñu génn nag mu ne nañ tabax xudd bi benn yoon bu ko defee ñoom ñu dee foofu moo tax mu ne law ittalaxta alayhim boo leen yënd woon la wallayta minhum la wallayta da ngay mujjee woon ginnaaw minhum ci ñoom firaaran di daw wala mu lita wala nga dëddu minhum tukkee ci ñoom roban jële fa tiitaange goo xam ni di nga toog ay fan yoo xam ne da ngay mel ni lu ko jañaar ayatun min ayatillah subhanahu wa taala boo demee ci ahlu tawil day wax ne aaya ji bokk na ci liñ ciy jànge ba tey ki nga xamante ni moo di ci nam ma jege yàlla yàlla di ko tàggatal boppam ci lu dul wasita mooy amul intermédiaire maanaam jaarul ci benn sëriñ am na nit dina yegg ci yàlla te du jaar ci benn loxo léeg-léeg nag ñu def erreur ñu bari dañ defe ne ku jàppul tariqa doo am cër yàlla loolu erreur gënu ko rëy am na ñoo xam ni jàpp ñu benn tariqa te ay wali yu kaamil lañ ci lu wér yàlla moo leen tàggatal boppam benn ñu ngoy ci alquran wala ñu ngoy ci salaatu ala nabi wala ñuy jëfandikoo loo xam ni sax na di naafila guddi yi nga yàlla joxal leen cër yu rëy rëy rëy ci yàlla a ngi dégg mu ne ki nga xam ne yàlla moo tàggatal boppam te amul wasita amul intermédiaire serigne bu muy jakk neena koku da fay ajeewo beugé jege yalla mu melni comme ku dé comme ñom ñoñu ni len yalla don tàggateele bopam ñuy nelaw mel na dé da fay mel nono ci kanamu yalla mooy lan boy kabar buy julli rendez-vous la bo xamni ni rek la ko di amé xam nga ñun bu ñu soxla président la république da ngay ñaan audience bind dégg nga ñu ñu nangul la jox la rendez-vous jox la bis nga ñëw jaar secrétaire beeg yëpp yàlla nag moom benn bouton ngay bës rek xam nga bouton yi mooy lan mooy allahu akbar boo ne allahu akbar rek mu ne la aca mu ngi janoog yow ubbi na bunt yëpp ne la yegsil bis bu ne limi muy recevoir ci ay gan kenn xamul na mu toll ak waxtu juróom yëpp nag léegi nag booy jëm ci moom rendez-vous boba da nga wara melni ku dee melni ku dee moy lan mooy boo xasee ba kabaar sa xol bi yëpp da dang koy acc yalla xel mi yëpp nga concentré ko ci julli ci bo dee jullee nonu ta sax ci di nga am cër bu kawé ci yalla da ngay dem ba bo kàbbaaree day melni yaangi janok yalla parce que hijab yëpp dañ koy dindi motax ñena koku nono nono lay lolo moy don tarbiya comme gars yi nga xam ni yàlla mu ngi leen doon tarbi yàlla boppam ci biir xunt ba ñi def fa lu tolloog ñetti téeméeri at ak ak ak ak ak juróom-ñeent ah ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent ñi nettali ne ñi nga xamante ni ñooy nit ñi dugg aljanna noonu la amee it ay rab yoo xam ni danañu dugg aljanna ëllëg ne bokku na ci gelemu yontu yàlla salih ba bokku na ci nago sayyidina ibrahim bokku na ci gàttu ismail ba bokku na ci nago musa ga bokku na ci jënu yunus ba mooy laa ilaha illallah subhanaka bokku na ci mbamu uzair ga bokku na ci xorondongu suleymaan ga nan la yahtimannakum suleymaan wa junuduhu bokku na ci piccuk balqis ba bokku na ci khaju ashabul kahfi من ربي dañu dugg aljanna ñu ko wax ci borom xam-xam bo demé ci hasan al basri rahimahullah da doon wax mu xaj wi dafa manam jikkom mo rogalat ci jikkoy ci jikkoy xaj yi manam ñene bo boo bëggee jege yàlla faw nga am jikko yooya mu ne bokk na ci ba ca njëkk mooy يكون جائعا فإنه من أدب الصالحين خج بي دفرون خيف نينا مودا خيف دفا بوكو تي ليغا خامني موي دأب الصالحين موي يونو جاي جاي جاي جاي يالله يو باخي نيتو يالله يو باخي خيف دفا بوكو تي سيني مبير مانام دو فوج تولو دانيي خيف خيف خيف بايا فولن فكيت دي دو نيو ليك تا سوخلا ونيو ليك لا ناكل حتى حتى نجوع واذا كلنا نشبع لولا انت واخون ñun du ñu lekk lu dañoo xiif te bu ñu lekk du ñu lekk ba suur muy secret bi gën a gaaw ci wér yaram scientifique yi dañuy wax ne nit bu dee def weer wu nekk muy woor ñetti fan ñetti fan yaramam day rajeunir waat li ci nekkoon ci ay tookeeg yëpp day dee feebar yi nga xam ni mooy tooke yi nga xam ni ñooy dem bay jur cancer ci yaramu doomu aadama yooya koor gi da koy éliminer weer wu ne nga woor ci ñetti fan yu tegaloo loolu lu wér la trouvé science trouvé na ko dégg ñaareel bi mooy an laa yakuna lahu makaanun maarufun xaj jafe na nga am barab boo xam place boo xam ne foofa rek nga ko xamee du nekk fudul foofa te loolu nee na dafa bokk ci màndargay ñi weeru ci yàlla ku wéeru ci yàlla subhanahu wa taala maanaam du maanaam doo ko du doon koo xam ne nit lay dimbali ko bañ naan diw de fu mu jaaxalee rek ci diw la jëm déedéet léppam ci yàlla la koy wéer ñetteel bi mooy an laa yanaama min al layli illa qalilan wa dalika min alaamati al muhibbin mooy du nelaw guddi loolul tuuti xaj moo gën a ñàkk nelaw guddi moo tax bëccëg foo leen fekk ñu ngi tëdd ñoom li ñuy nelaw bëccëg lañ koy nelaw waaye guddi lañ gën a bari ci li ñuy dox loolu moo tax ñu leen di gardeloo te loolu dafa bokk ci mandarga yi ñi nga xam ni dañoo bëgg yàlla ñeenteel bi mooy ida mata la yakun lahu mirath wa dalika min sifati al mutazahidin mooy bu bu deewee du am ndono xaj bu deewee du am ndono teena te loola dafa bokk ci man melokaanu ñi nga xam ne dañoo dëddu àdduna ci dëddu àdduna du soxla liggéey ngir bàyyi fi ñu naan aw turam des fi pour wu farag wu fi des la yemale loolu du affaire am dee dajale fukki nit ak ñaari ak ñetti nit la yemale ak dajale dajale junni nit loolu du affaire li ko yitteel mooy liggéeyal yàlla ci kaw suuf lu ko yàlla jox nag moo xam ni lii yàlla moo ko ko jox waaye jubluwu ca leneen lu dul jamu yàlla rek من جرم الموي ان لا يترك صاحبه وان ضربه وجفاه خج باي كيمي اندال بروم خج دوكو باري ميم بوكو دون دور صاح دو تاخ مو باك وخاسي با مين موم رك لاي اندال تا لول دا فا بوكو سي ماندار جي نيغا خامني دانيو نام جيغي يالا تا تك تا توپ جرم بنل موي انه يرضى من الارض بادنى الاماكن وذلك من علامات المتواضع موي خج سوف يب barab yëpp d'accord na ni mën na faa nekk jomalewul boppam nekk fanaan fii wala ci suuf sele wala ci nangam nee na loolu dafa bokk ci màndarga yi ñuy toroxlu juróom-ñaaril mooy ida taxallaba ala makaanihi tarakahu wa nsarafa ila gayrihi wa hadihi min alaamati radin mooy barab bi mu nekk bu demee ba dominer ko fa ba na am ko fay bundu xataal wala di ko dàq wala di ko day déplacé dem ci feneen nekk foofu te lol dafa bok ci màndarga yi ñi nga xamni ñoy d'accord ci ngër mu mooy li yàlla def dogal dañ ci d'accord juroom ñettel bi nak moy ida darab ida duriba wa turida wa jufiya alayhi wa turixa lahu kasratu ajaba wa lam yahqid ala ma mada moy boko dore wala nga dàq ko wala nga bayiko wala nga dor ko ba mu am ben fracture tamit du tax mu jàppal la mer bokkul ak géléem nag foofu la wute géléem géléem boo ko dooree benn dóor dóor boobu mu ngi ko denc ci mémoire ci boppam bu ngeen da doon dund cent ans bés bu la jekko dóor boobu nga ko dina ko fay <laughs> loolu moo tax ñi ñi ñi ñi ñi ñi sàmm géléem di kaalaw kaalaw ba daj pour bañ mu xàmmee ak bañ tamit mu bala jekkoo mën naa ngànk matt sa bopp bi faagagal la dafa bari doole xasanul basri non la ko tënkee mu ne juroom bi nag mooy ida xadara al akl jalasa baidan yandur wa hadihi min xisaali al masakin nee na bu añ bu bu lekk bi ñëwee day toog fu sori di xool loolu moo tax neexul posone xaj neexul a posone da ngay tek ñam bi mu tok dila xol xool la xar da ngay tek rek mu daw ci mais dalay tok dila xol dila la xool di la di xam ci yow lu bari ta doo ko xam bu ñewé bala muy lek ñam bi da na ko fon ba xam li ci nek lol motax ñi def espionnage ci walum armée beeg yoy ñu koy jëfandikoo lol lépp xam-xam la fukel bi nak moy innahu idha rahala min makanin la yaltafitu ilayhi wa hadhihi min alamatil mahzunin Moy fukkeel bi moy bu xasse ba joge place ba déplacer wu dem man nako ko ko ci gennam dotu ko gestu te lol dafa bok ci gay ñi xamni ñoy ne ñooy ci seen ak seen borom bu ñu défé lu baax dañ koy fàtte nekkaat ci lenen nee na ku bëgg a yalla bo boo juroom fukki ci ko yoy ci xaj nee na di nga mëna a yalla mu tek ci na wa kadhalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum قال قائل منهم كم لبثتم لكن نك نيغي نييو جوغي نانتي نالو يا بنك با ورا ييو نك باني ورا واخ نك لان لاني فا ديف دير باني فا نيك من يعني وكذلك كوم نونو لا ها نين لين اندي وون فوفا با نلاو لولين با ني نيك فا اي ات تدرجت لين فا نونو يتبعثناهم لان لين ديكلي bu ko defee li yatasaalu ngir ñiy laaj baynahum seen diggante ñiy laajante qaala kenn daal di wax qaa'ilun kenn ci ñoom minhum ci ñoom ne waa ñun kam labithum ñun sax ñaata diir lañ nekk fii parce que dañoo nelaw rek yeewu daal di fudd yëguñu dara gis xunt bi ni meloon la mel dara changé wu xaalu ñu ne ñu de daf mel ni labis naa yow man de daf mel nelu nañ fanu lumbu de aw baada yawmin wala wala genn wàllu fan léegi nag ñuy werante ñi naan ah ñi ndee est que defuñ fi ay ay ay ay ay ay waxtu rek léegi nag ñu ne qaalu ñu ne rabbukum seen borom aalamu moo gën a xam bi ma labistum ci li ngeen fa sax mooy li ngeen fa nekk léegi nag yàlla bëgg leen feeñal nag fekk boobu ñoom dëkk bi soppeeku na ña doon jaamu xërëm nit ña tuub nañu ba dugg ci diinay christianisme bay wéetal yàlla ba seen famille yi seen doom yi dund ba am doom ba faatu ba seen sëti ñëw ba seen sëtaat ñëw léegi ñu ne leen fa baasu da ngeen yoni ahadakum kenn ci yéen bi wariqikum haadihi ci seen kayit bi mooy xaalis bi kayit bi bu ngeen demee dañ ko jox xaalis kayit bi ñu ne ko na ci jënd nangam ak nangam bu ko defee ilal madinati mu dem ci dëkk bi mu demee fal yanzur na xool ayyuha azka lan mooy li gën a sell te gën a neex taaman ci ñam ci dëkk ba mu jënd ko bu ko jëndee fal yaatikum mu indi leen ko bi risqin ci wërsëg boo xam ne minhu ci moom la jóge lekk naanu ñu ba noppi di dund nee na ni mu defale woon jaam yooyu muy maqaamun indiya googa noonu la defele woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit loola loolu moo tax mu doon wax naan abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini am nga am nga yonent bi daan na prolongé kooram daan na woor ba timis jot mu continuer du lekk du naan gaa yi ko cee roy mu ne leen déedéet maa yéen bokkuñu de man damay fanaan ci sama borom mu may lekkal di dundal dima ma jox may naan tamit kooku nag gadaa un ruuxiya la loolu leen yonent bi daal toon sallallahu alayhi moo tax lay déggee ci aaya bi rek ci xadis bi da tey ñuy jàngal ne lépp luy maqaam suñu jiitoo amoon rek ci nitu yàlla yi saalixiin yeeg dégg nga anbiyaaw yi mursalin yëpp rek yàlla mooñal na mooñal na ci yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla jox na ko bépp maqaam bu yonent bu amoon rek bu ab yonent amoon ci jëfandikoo waayam rek yàlla jox na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te bokkul ak yëfi boppam nag yàlla di ñu leeralal nag bi mbir moomu jàllee ñu nekk ñi naan ñeenti lañ ñi naan juróom-ñaar lañ naan fukk lañ mu ñëw nag di ñu joxal di ñu wax li nga xam ni moom moom lañ ci wax من سيقولون نينا ثلاثة يوم نت رابعهم كلن ينتل كلبهم ويسين خطوة أم نيوخلول ويقولون أم نينا خمسة جرم لنوان سادسهم نيلين كلن جرم بين الكلبهم ويسين خطوة وين يوم يوم نيب رجما دني نتلرك بالغيب تلي فاد كمبا يوم يوم دني وخلول رجما غير نتلي بالغيب تلي كمبا ويقولون أم سبعة جرم نار لنوان وثامنهم كلين جرم نتلون كلبهم ويسين خجب لأننا قل نال ربي سما برام يا محمد نال ربي سما برام أعلم مويكي خم بعدتهم تسين قلم ما يعلمهم يوم خمون يلن إلا قليل للمتوت ابن عباس نكون جرم نتلون يعني دي يتعمون جرم نار لنوان أخجبه mune kon am ñu wax lool te mom la mujjé lim bob mune kon juroom ñatt lañ légui nak mune ko fala tumari fihim bul werante ci ñom illa miraan ludul werante go xamni zahiran gu leer la liñ lay liñ yorante ak yow ni wala dila ko laaj nang leen ko wax expliquer leen ci lu mu leer nañ yo xamni du tënku ci ay israiliyat wala tastafti tabul bul ubbe فيهم تنيوم منهم تيغا يويا احدا كن بوتي لاج كن نانكو نخ اصحاب الكهف نان لاني ديميوون نان لاني تولون نياتا لاني وون ديدت ولا تقول ان بول واحد لشيء يل لن اني فاعل ندينا ديف نانغام دنج ذلك لولا غدا صبح ما اني فاعل دينا ديف نانغام ذلك تشلولا غدا gadan suba ان يشاء الله لرد lu dul ne soob na yàlla maanaam bur wax ne dinaa def nangam suba te waxul ne te waxoo insha allah wadkur rabbaka te na ngay tudd sa boroom ida nasita boo fàttee boo ان شاء الله nangam fàtte insha allah na nga tudd insha allah buñ nangam nga fàtte ko ngay khalat affaire bi waxa subhanallah جلد بري خلات دار افير بي ديكول سنة تي سنة دا ngay سبحان الله امانه شيطان موي بلوكي سا خيل يا سبحان الله مولاي بيرتيربي ونغا قول وقول نغا وخني عسى ان يهديني خينا دينا ما جيني ربي سما بروم لاقرب غير ما جيجي من هذا تي لي رشدا اكو نجو يغنا يالا موني ولا بيثو في كهفهم 300 سنين موني ولا بيثو ني sax fi kahfihim ci seen xuntu wawa salaata ñetti téeméeri at sinina ñetti téeméeri at wa zaadu ñu dolli ca tisaan juróom ñeent muy trois cent neuf moo kumay limu asxaabul kahfi ah, silimu at ya at ya at ya ñu fa dund na nelaw قلنا الله يلا أعلم موي كي خم بني موي كي جانا خم بني موي كي جانا خم فمن دفع منين يو خم كل يلا لكن أنا أعلم موي كي خم بما لبثوا تلني فرف تلموي جه تلني بدي بعض ونكون نعم لني فرف بس كني رون نتيل نفك ونيكو له موي كي برم غيب السماوات لي لي كم بتي أسمان لب ما موكو خم والارض اكليكم باتيسوف ابو سير موم موي كيكوي غيس غيس كو لير بي هي تي موم واسمعت موي ديغ لا فاي خاو ييب ما لهم ديد لين نيل مي دونه كودول موم يالا من ولي تي بن ادي مينغو موي كليف ولا يشرك تديف البكال في حكمه تي اتم احدن كن كن بوكو تي اتم لكن من يننت واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا من واتل نغا جانغ جانغ يا محمد ما أوحي إليك لن لي وحي نلقي وحي من كتاب ربك تستير برمبي لا مبدل أم الأجي صبي لكلماته نيال أي قدم walan tajida ta doo fekk min dunihi kudul moomit dégg nga multaxadan ji aji weddi wala ngeen multaxadan ci wéeruwaay kon subhanallah dégg nga multaxadan ci wéeruwaay maanaam doo fekk kenn ku ñuy wéeru ci kudul yàlla subhanahu wa taala kon dafa war ci ñun jullit yi ñuy li yàlla di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nan ko watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik la mubaddil li kalimati kalimaati walan tajida min dunihi multaxada dafa war ci ñun ñuy sukk ñuy sukk ngir lan ngir jàng alquran gëstu alquran ak nu ñuy pratiquer alquran ak xam lan mooy yoon bi ñuy jaar pour xam li nga xam ne mooy réalité alquran ndax watlu maa uxiya ilayka min kitaabi rabbi yàlla wàcce yonant bi al wàcce alquran ci yonant bi yonant bi di ko maîtriser ko di ko jàngal saxaaba yi mu naan ko del jàng li ñu la wàcceel li ñuy li ñuy wax yu ceew dee ko jàng loolu kon ñun war ci ñun ñuy def ta ñuy def ñi ñu ñu rajaa alquran bu dee dañ ko mokkal ñi di ko nafar di ko gëstu luñ ci xam jàpp nañ maîtriser nañ tafsir bi ñu gës ñu ñu ñu ñu jàng tawil maîtriser nañ ñu dellu ci alquran ak science ndax ay cax la rek cax boo xamante ni dem nañu ba jàpp ne am nañ ci lu bari ah ñu seetiwaat beneen cax rek boroom xam-xam bu ci ne rek ak cax wi muy fecc nag tey boo jëlee dégg nga tafsirul qurtubi suba dego demal ci ibnu kasir ginnaaw suba demal ci eh, zilal quran ginnaawaat suba demal ci dégg nga tabarani dégg nga noonu nga koy toppee ginnaaw soo demal ci ruuxul bayaan kenn ku ci nekk rek am na aw naw cax woo xam ni am na lum ca tekk loo xam ne mën na laa jëriñ loolu dafa war ci jullite du jeex ba keroog ñuy faatu ndax képp koo xam ni dafa bëgg dégg nga dugg ci kër dugg ci kër laa budda mu jaar ci bunt bunt boobu nag mooy alquran buntu lislaam mooy alquran mu jële ci ah, Seydina Ali muy wax ne ku jàng alquran fekk mi ngi koy jàng mu ngi taxaw di julli nee na kooku dafay am yool xaraf bu nekk dañ ko ci bindal téeméeri tiyaaba moo tax alquraanu julli moo ëpp doole alquraan bu dul julli wala moo tax tur yàlla wuñ la mën a jox nga di ko sikkar Kabar, yol yol yamul ak yoolu kabar di jang alquran ni ngay toge di jang lixlaas bokul ak nga kabar di jang lixlaas mo pou dole foofu yaa ngi dégg moo ëpp doole foofu boo doon jàng di jang guddi def ko salaatu nuraniya di jang Di temere lixlaas ci ñenti rakka rakka bu njëkk bi nga def ñen fukk ñaarel nga def ci ñaar ñettel nga def fanwer ñettel nga def ñeent fukk muy na fi le ba am dole la salatu nurani wala nga def salaatu samadaaniya muy téeméeri lixlaas ak ñent rakam bu da ngay def fuk ak ben ñaare bi nga def ñaar fuk ak ben ñettel bi nga def fanwer ak ben ñentel bi nga def ñen fuk ak ben denga nga yooyu mag dañ ko daan jëfandikoo ci walu julli guddi mu ne jang al quran ci julli xaraf bu ci nek dañ ko bindal junni tiyaaba sunna li mu wax lool bu ko jang tok ci julli jang ko fekk mu ngi tok xaraf bu nek dañ ko bindal khamsuna khamsa be da jang taxaw bi da jang tok manam di julli tok toog di julli di naafila daal xaraf bu nekk dañ ko cay bindal cinquante tiyaaba ku ko jàng ci lu dul julli xaraf bu nekk dañ koy bindal vingt cinq tiyaaba ku ko jàng dégg nga ku ko jàng julliwul waaye mu ngi am njàpp xarab bu nekk vingt cinq tiyaaba ku ko jàng te amul njàpp ca julliwul xarab bu nekk ñu ko cay bindal fukki tiyaaba kon alquran mo ngi nonu kon ñu ne nag Al bi gën ci alquran moy ànd ak japp ak tok jublu qibla bu fekke ne julli wo boobu moy bi ci gën ci jang bi buy tamit bu baña a ko son manam li wax desanu ak ya ci aju bañ a toog go goo xam ne reuy rëy lu la tamit manam di wane ni kilifa nga dal kooku tam dañ ko cee tere waaye boo demee ci al ashbah day wax ne déglu alquran amul yool bu ko ëpp déglu alquran lu neex a dégg lay parce que boo dee déglu alquran ngay déglu koy jàng léeg-léeg teewlu ba nga cay am doo ko am ci boo koy jàng masalan am na koo xamante ni déglu bi moo ëpp ci moom moo moo gën ci moom parce que jàng bi du ko teewlu day jàng di nekk ci yeneen mais bu ko dee déglu dana cee mën a teewlu boobaa déglu mooy li ci moom ki nga xam ne moom ko mën na ko jàng di ko teewlu jàng bi nag moo problème parce que yoolu làmmiñ bi ak ak ji muy jàng di ko dégg ak keneen ki koy dégg xam nga jàng bi rek la wax ne lay am nangami tiyaaba waxuñu nag ka koy dégg ki nga xam ne daa ragal bu koy jàng ñi di ko dégg mu jële ci ngistal kooku mu muy wàcce baatam wala muy déglu mu ëpp ci moom doole وليقنك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يلا نا يونت بي صلى الله عليه وسلم ني نا اي جي نك تي ني واتي تي اصحاب آه، ني تودي اهل الصفه ام ناني واخ لول اهل الصفه مو ني دان توك تي بن زاويه تي كي بي تي مسجد الرسول يا خامني سين بير ياب جام يالا وون جانغال القران اك سيكار اك يتاج ام ناني واخ لول يلا نا يونت بي واصبر نا باي خيل نفسك تي سا بوب مع الذين عندك نيغا خامني yad'uuna rabbahum dañuy woo seen boroom bil xadaati ci bëccëg wal yi ak ngoon ba noppi ñuy woo seen boroom ci bëccëg ak ngoon yuriduuna ñi cay wut wajhahu ñu namm ca wajhahu jëmm yàlla gi rek maanaam dañ koo def pour jaamu yàlla kase lii moo tax ñi taamu aaya bi moo tax ñu taamu ci sikar ginnaaw tàkkusaan ak jëm après timis ak ginnaaw gee yad'uuna rabbahum bilghadaati wal ashi maanaam ginnaaw timis ak ginnaaw suba kon dama jum ginnaaw timis ak ginnaaw suba yaa ngi dégg ginnaaw takkusaan ak ginnaaw timis ak gin après suba boo ne bil ghadaat ghadaat googu mooy jàpp diggante suba jëm ba bët set bu jant bi di al ashi yi nag mooy ngoon boo nee bu ñu ya taksan rek tàmbali na dem ba gée yeb yëpp la ginnaaw nag da ngay dugg ci guddi nak la ci top kooku nak benen benen domaine la moo ci karu taksan amna doole bu dee ci wazifa euh li bari boy set bu xeyna fi senegal waye biti dinaaw taksan lañ koy def li bari ndax waa wasifa ginnaaw takkusaan ñu gën a bari bari nañu koy jëfandikoo ci gannaaw ginnaaw takkusaan waxtu wu baax la ci wérde nettali nañ ne sëñ Habib si radiyallahu anhu Seydil Xaaj Malik bu xasaan bu julli takkusaan day buntam bu xasee ba tëj da ko ubbiwaat timis jatul loolu nettali nañ ko xasaan ba julli takkusaan bu tëj day tëj buntam te du biwaat ubbiwaat fileeg timis jatul a waxtu waxtu woowu di daan liggéey lu bari im daan liggéey ci la ko daan liggéey nettal leen loolu de dégg mu ne ko nag yonent bi nag yàlla ne ko wala taxdu bul jéggi ay naaka say bët anhum ci ñoom wëles leen gaa yooyu bu leen xeeb de leen bàyyi xel de leen fonk de ndax samay gaay lañ dañoo bokk ci gaay yi intervenir ci àdduna bi ci ruuxaniya mu ne bu leen jéggi de turiidu ngay namm zinatal xayaat dunya taarug taarug adduna déedéet wala tuti te topp it man ñi nga xam ni agfal na sàgganal nañu xalbahu xolam ki nga xam ni agfal naa sàgganal nañu xalbahu xolam an zikirina ba talu ñoo sax di tudd ba dañuy fàttali mooy ki nga xam ni nitu adduna la léegi bi nag boo doon jël di ko tawil ci jamono ji day dellu ci ñi tuddee kilifa diine maanaam ab sëriñ warul xàmme ku sol yére bu rafet ak ku sol yére bu bu ñaaw warul xàmme ku gaare oto ki nga xam ni voiture la war ak ki nga xam ni charrette la war ak ki nga xam ni daa ñëw sol daal ak xam ne bi muy ñëw solul daal loolu yoonam nekku bu bëggee jariñ ndax barke bii doxal li fi mu ngi jóge ci gaa yooyu te xamu ko ñu bari dafa ni jaamu yàlla yi ni wër te ñooy doon seen secret لين يلا دي دفال في أي توفيق أي خير يب جام يلا يو يلا كوي جارة مال رزما رزما أمنا تيني يلا ديمبلي خمسين بوب خمن لي في نني دنيوم جد يارون شيء دراي ابنك يلا ممكن جارة له شيء من ده فمي يلا كمبران دولار باي باي خل من ده في يلا باي ورول دي باي خل من ده في يلا يحور لولا ركني فورا فانك من ده في يلا يتخمن أي من ده في يلا له yalla mo len sak sak sak gim len sak def len teral yalla mi sak sak teral leen xewu len nel na len jamu ngir jamu yalla subhanahu wa taala bu ko defé rek dana mana a jëriñu ay mbiram yalla mën na def barké waye nak jamono ji mom bo buggee dem fenn bugg a gaaw dugg yu gaaw la recevoir foog nga abbi oto de bugg auto bu baax mom ut ben bras droit mu cartable boo ci boo ci def ay journal sax moom na ko rek boo defee boo ñëwee ne asalaamaaleykum nu nuyoo bu dëgër nag sol yére yu baax grand mbubb ak dégg nga yu rafet boo ñëwee bul xaar ñu naan la sax toogal ci kaw boo ñëwee toogal ci kaw rek toogal ci kaw photo bi xaw a xoggali ko tuuti bëkk néeg bee jug dugg ne ko sëñ bi diw ñëw na de ñu la mun a diw diw nangam waaye gën nu mel yéen dóorkat yi nag dañuy toog ci biir yow yaa leen wax kii ñëw nan la mel nga naan ko nan la mel lu mu sol dafa indi oto nga ne ko waaw kilifa la de nga ne waaw ne yegg si ne gaaw daa defar toogaay bi gaaw ñëw mu ne toogal dara indiwu fa pour bëgg lu dul bëgg laa gis ñu bari noonu lay nax yéen kilifa yi ba dugg parce que bu dul loolu duñu dugg duñu dugg <laughs> loolu nag musiba la musiba la nit yàlla yi duñu duñu du ñuy doxale noonu duñu seet duñu segg nit nit yàlla du xam luy kii mooy diw kii mooy diw déedéet ñëpp lay yemale ci kanam yàlla day fonk ñëpp looloo koy yokk nag dégg naa benn kilifa mu koy nettali fan yee passé rek suñ Babacar Si Mansour mu ne dafa dafa dajeeg benn waay ci benn conférence dafa dem benn conférence ba génn di ñibbi dugg ci otoom benn soxna daal di ñëw ne ko di ko sàkku ndimbal nee na ma toog ci oto bi di ko di ko jox xaalis bi nee na mu ne ma yow ma mbaaru da ngaa rëy di te mënoo wàcc oto bi sax jox ma li may jox wax ak man correct nee na may wàcc ñi ma àndaloon ne ma déedéet bul wàcc neen bu daa wàcc kay neen ma wàcc bi ma wàccee mu wax li muy wax ba pare ma jox ko li ma koy jox nee bi ko joxee bi ma tourné rek gisatuma ko fekk dem na yoonam bu yàgg xam nga kooku mbindeef la ci mbindeefu yàlla yi te yooyu yëpp ay obstacle la yoo xam ne ñu ngi ci biir jaam yàlla yi kenn mënu leen xamee dégg nga moo tax mu ne wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina bul topp ki nga xamante ni ñun ñoo dañoo sàgganal xolam ci mu di ñu tudd am ñoo xam ne du ñu tudd yàlla duñ ko bàyyi xel seen yoon nekkul ci biiru yàlla waaye jàkka ji lu muy tuuti tuuti tuuti tuuti lu muy néew néew mbooloo am na loo xam ne bu ne woon tëll rek ñoo fi njëkk toog ca kanam rek jiite jiite julli gi nag yaa ngi may dégg jiite julli gi <laughs> boo xefee sax balaa imaam di jow sax ñu jël xëcc kaala gi daal di teg daal di liqaam ne bismillah nga liqaam ñu kàbbaaral la nag parce que loolu ci loolu la ñuy dund ñoom ci protocole la ñuy dund ak mbooloo ak feeñ ak am visibilité pour mën a amaale ay relation ci yenn nitu àdduna yi mën a defar seen affaire wala nag yàlla ñu ci yàlla musal noonu kooku wattabaa mu topp hawaahu ba neexu bakkanam moom waajooj bul topp bul bul bul bul topp kooku nga xam ne dañoo far ci xolam dañoo far xolam ba moom mënul tudd yàlla mënuñoo tudd ba noppi mu doon goo xam ni ittabaa hawaahu dafa topp bànneexu bakkanam banoppe wakana mo nekk amruhu mbiram furutan di lu jéggi dayoo maanaam dafa dem ba moom maîtriser tul boppam léppam àdduna la du jëf ngir yàlla du jàng xat mu ngir yàlla doo ko jox jukki mu jàng ko ngir yàlla du toog ci barab ngir yàlla du seeti nit ngir yàlla du woo nit ngir yàlla lépp am na lu koy laal ci ay intérêt ak jëmi ak ak mbiru àdduna mu ne waxul nee leen la min rabbikum gu jige seen borom alquran ji فمن شاء كمن يهنك فليؤمن نقم ومن شاء كمن يغير فليكفر مو يدرك وينك ان اللي في نك وينك في موي ان نون دي اكا نون اعتدنا واجل نيو بريبارل نيو للظالمين نيل تون كاتي نارا بوغل غو خامني احاط بهم دليني ور دليني ندر كيبي سرادقها اي خيمام وكون خيمه لا تشبه لا مانام بوغل غو خامني دليني ور بدات mu ne wa in yastaxiitu safara lay wax de buñ dee xettaliku ñoom ñooñ buñ leen dugalee foofu ba ñuy xettaliku yu xaasoo ñu daal di leen xettale bi maa in ci ndox moo xam ni kal muhli dafa mel ni ndox ndox mu ñu baxal ba muy jër-jëri bu ko defee yashwi ñu di ko ñu di ko lakke ñu ko saañe al wujuha seen kanam yi maa il dégg nga kal muhli mooy ndox moo xam ni dafa mel ni ndox mu ñu baxa betax moo xam ne dañ koo baxal ba mu bax moom lañ leen di sotti mu ne bi sa ñaaw na asharaabu naanuwaay boobu bu ñu maree it ñu ko naanal wa saat te murtafaqan nganale googa mu ne inna alladina amanu wér na ñi gëm yàlla wa amilu salihat te ñuy jëf yu baax ñoom nañu xam inna naka ñun yàlla ah laa nudiicu du sànk nag ajra man axsana amalan jëfuk ki nga xam ne la muy def daf koo rafetal ah jëf-jëf ju raf ju baax te rafetal ko ah kooku duñu ay mbiram de boo légéey dana ko gis de moom la yonent bi doon wax naan yàlla du xool seen melo yi du xool seen alal yi waaye seen xol yi lay xool ak seen jëf yi li ngeen di jëf li ngeen di jëf ak na mu demee ca xol ba loola lay contrôler ñu nettali ne sayiduna ibrahim ñi nga xamante ni yàlla subhanahu wa taala daf ko jàpp comme xarit ne def naa ibrahim muy sama xarit malaaka yi ne ko waaye son borom ibrahim mi nan la mën a nekkee nan la nan nga ko mën a jagleele baatu xilla nan nga koo mën a joxe baatu xilla xarit xarit dafa fort te moom mu doon koo xam ne day jëfandikoo yoo xam ne day laaj bakkan maanaam dafa bëgg a am doom am doom ku koy bu ko bëgg faaw ngay sëy dafay dafay day wut alal dafay soxla soxna yàlla ne leen man duma xool sama melokaanu jaam bi ak lii alalam li may xool mooy li ci xoolam ak li muy jëf mu ne leen awma ku ku ku yayoo xulla xilla gi amul ku ko yayoo ku dul moom su ngeen ko weddee nag dem leen ngeen teste ko Seydina Jibril daal di ñëw ci Ibrahim ba mu ñëwee mu indi jëmm joo xam ne xàmmewu ko mu daldi ñëw fekk seydina ibrahim am na lu tolloog fukki xaj ak ñaar yoo xam ni pour rëbb la ak garde jur geeg ya ca aju te xaj bu nekk ñu ngi ko tax takkal benn or caq or lañ ko takkal waaye loolu da koo defoon ngir wan ne poyteefu àdduna du dara seydina jibril daal di ñëw ba mu ñëwee mu daldi koy nuyoo mu ne ko Ibrahim ku moom yi lii lépp li nga li nga dajale fi ku ko moom mu ko lillah wala kenn yadi mu ne ko lii lépp yàlla mooy borom waaye nag ci sama loxo la ne loolu la ko laaj mu tontu ko lool mu ne ko ndax danga ciy jaay benn mu ne ko mu ne ko uzkurullah tuddal ne Jibril tuddal yàlla boo tuddee yàlla nga jël ceer bi nee na ma ne ne jibril nee na ma subuuxun qudduusun rabbul malaikati wa ruux mu jox ma ci yar bi ma laajaat ko mu ne ma udkurhu saaniya tuddaat ko rek nee na ma tuddaat yàlla ma tuddeete yàlla mu joxaat ba beneen ci bi ma laajaat ko mu ne ma tuddaatal yàlla rek ma tuddaat ku mu joxaat ba beneen ceer bi ma laajaat ko mu ne ma tuddaat ma tuddaat ko mu jox ma la ca des yëpp nag سبحانه وتعالى نكو أنا أقر لك بالرق فقال الله تعالى كيف رأيت خليلي يا جبريل منكو منكو سنبرا منكو ننجا جيسي سما خريب بما لدون بخ منكو آه نعم العبد خليلك يا رب جيس آه، ما نمس خريب بيدي أمو المرام أمو المرام تخريب خريتو بعد ما يجي أهل التحقيق ني وخني li nga xam ne mooy kalimatu tawxid mooy laa ilaha illa allah ñu ne bu ko yéefar waxee tanfi anhu zulmatul kufri nee na yéefar bu ne laa ilaha illa allah li nga xam ne mooy lëndamu kéefar day dàqu ci moom bu ko defee wataf butu fi qalbihi nuuru tawxid leeru wéetal yàlla daal di sax ci moom waaye jullit bi bu ne laa ilaha illa allah day dàq ci moom lépp luy lëndamu bakken daal di saxal ci moom li nga xam ne mooy ci xolam li nga xam ne mooy leeruk wéetal yàlla bu dee da ko wax ci bis bu nekk mu wax ko junni yoon kullu marratin yoon bu nekk day daq ci moom jënga ci yoon bu njëkk bi comme na mu ko dàqe woon ci bi mu njëkkee wax laa ilaha illallah mu daq ci moom dégg nga li ñuy tuddee lëndamuk bakkan bu ko waxee junni yoon ci bis bi dëgëre bi day yokk rek dëgëre bi day yokk lëndamuk bakken maanaam dina ko sore lu tolloog ci junni xijaab pour jege loolu moo tax yonent bi doon xanaan julusuka saatun inda xalq xalqatin yadkuruuna allaha xayrun min ibadati alfi toog bi ngay toog benn yoon ci kuréel ñi tudd yàlla moo ëpp doole jaamu yàlla jënga eh, tolloog junni at yaa ngi dégg loolu moo tax boo ñëwee ci ci turuq yi ngay fekk ñuy dajaloo di def zikru moo xam wazifa la dégg nga wala zikru jumaati la wala beneen zikru la boo xam ni du wazifa du xeet googu mais zikru lañ koy tuddee ci yeneen waxtu yi akada léegi nag bu borom bi subhanahu wa taala ne bi sa sharabu wasaat murtafaqa safara lay melal yonent bi sallallahu wax ci xadis ne mbugaluk safara bi gën a woyof mooy jaam bi sol dàll ñaari dàll dàll yoo xam ne dàllu safara la waaye dàllu safara bi bu ko solee tàngoor bi day topp day topp neer yi ak deret ji ba ci yuur yi di bax-baxi mu di ko yëg nee na boobu mbugal bi gëna a ci mbugalu safar safar de yalla buñ ko gis sax ñun ba ci tawil batai ويلا نعم الثواب وساء وحسن متعب ما بين الآية أولئك جلو أولئك لدي أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقة ليجمون أولئك جايوين yan gaay yi mooy gaay yi ñu bàyyi woon ci gannaaw sànq dégg nga gaay yi ñu bàyyi woon ci gannaaw sànq bokk ci ahlu suffa mu ne lahum ñeel na leen jannaatu adinin ay aljannay adin dégg nga al adina nag li muy tekk mooy addanay aljannay saxuwaay lañ koy tekkee wala neexee nga ne nga jannaatu adnin ay ajjanay saxuwaay rek ci ay barab yu wuute aljanna yoo xam ne tajri day daw min taxtihim ci seen suuf al anhaaru ay dex ba noppi yu xallaw ñoo ñu leen ñuy takkaayoo fiiha ci biir aljanna ja min asawira ci ay caq moo tax ñi naan min dahabin ci or caq yo ya xamni ni or la ñi tax naan ku koy yonent ya bi doon wax naan ku koy tak fi bo naree dem aljanna ëllëg do ko fa tak wayalbasuna ñi sol tamit ay yere yo ya xamni ni yu verte la min sundusin ci oruk sundus wa istabraqin ak istabraq ay façon la ci ay or deng nga loola na ci li nga xamni yalla yàlla na len متكئين ني ويسون موي تدي جيغنا يلوخو فيها تبير الجنه على الارائك تي اي لال من النعم ام المرم الثواب يول غوغا وايد وحسن الترفت نيت مرتفقا تي نوبل واي بودي اهل التاويل داني واخني ليغا خاني مودي ايمان اك جيف يو باخ نيت بوكاي ديف داي ام فاي pay mo xamni ni day méngoog loolu ki nga xamni da fay borom iman la tay jef jef ju bax di dox pour gal janna neena dana am loolu incha allah ak liñu tuddé taatul badaniyya am ci yene bu sel dana ak loolu am jef yo xamni nak nit ku da koy jëf pour jégué yalla kok lañu tuddé taatun qalbiyya loolu motax mën nañoo ñëw daje ci jàkk ji am na koo xam ne toujours mu ngi ci sàppe kanam bi toujours ci lay taxaw te du rate benn waxtu yàlla defal ko ci taw tawféex am na koo xam ni dina ñëw waaye léeg-léeg mu rate waaye xelam mu ngi fi ak xolam mu ngi ci te du te du tolloo kooku dayo ndax dañoo bokkul ci taaxaat moo tax ki ñëw taxaw di teel a ñëw di jaamu yàlla fi yëpp moom dafay jaamu yàlla rek pour am aljanna kee nag day jaamu yàlla ngir jëm yàlla ji bokkuñu dayo yaa ngi dégg loolu bokk na ci dafa mel ni kii ñëw di seet ci kilifa gi rek pour gis ko rek ak ki nga xam ne daa ñëw pour jëriñu ci moom bokkuñu jannatay ni ñaari tool benn tool bi min anabin ci ay raisin la wa xafafnaahuma ñu ñagee tool yi ñaari tool yëpp bi naxlin ci ay tàndarma kom ñi ngi ñage tool euh, selaan wa jaxal naa ñu def bay na baynahuma ci diggante ñaari tool yi zaran mbay mu gàtt mooy mbayum karaat karoot ak ay supameek mooy toolu dëreeg ya caaju kilta jannatay ni benn ci ñaari tool yi <clears throat> atat dal di meññi ukulaha ay meñ ay lekkam maanaam lay fur wi yaag légumes yooyu yëpp daal di meññi moom mi borom tool bi walam tazlim te ñàkku ca walam tazlim min hu te ñàkku ca shay an dara mooy pertu ca dara tool bi yëpp kenn tooñu ko ca dara maanaam mooy tool bi bi mu jëmbatee lépp meññ na dara yàquwu ci wa fajjar naa ñu daal di ballal fi xilaalahuma ca biir tool ya naharan aw dex wa kaanat tool bi نكنا له نيال كو ثمرون اك مينيانت مامودادي خول غيس تول وي نار لول فقال مودالي واخ لي صاحبه خريتم به وهو فك مام يحاوره مون يوختان اك موم مونيكو بابو يغنا بابام نك مونيكو انا اكثر منك مالا من مالا ابلي علل مالا ابلي علل واعز تمالا غنيت nafaraan ay xarit waaye àndandoo maa la ëppale alal wala ngeen wala ngeen wala azu maa la gënit ay mbokk rek ba nee mbokk employé ngi ci doom yaa ngi ci ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi ñëpp ñu ngi ci biir nafar googu dégg nga mu wax loolu mbokk xaritam bi nag wa daxala mu daal di dugg benn bés jannatahu ci toolam wa huwa moom ndeysaan zalimun mu ngi tooñ li nafsihi ñeel boppam mu ngi tooñ boppam ci li muy bëgg a wax ni ndax qaala bi mu duggee tool bi dane man de ma azunnu njott ma woon ne njott yaakaaruma ne an tabiida ne dina jeex haadihi xewal gi abadan ba faw alal ji lii ma dajale nii lii bu ma ko récolté ba jaay ko bi mu xool xool natt chiffre d'affaires am gis li muy am ci alal <tsk> ma ne non sama alal mëntu jeex am na ñu dem ba tool foofu gëm ni seen alal mënatul jeex maanaam li ñuy am du jeex mu ne ah wa ma ginnaaw ga nag mu dem bi alal ji bari lool lool mu gën a yëg boppam nag <sniffs> dund gi neex surtout nag boo dee dund doo feebar ni da ngay dem bu benn instant da ngay defe ni adduna bi kenn noo fi yow léeg-léeg nit dund benn jamono boo xam day traversé ay at am ay am benn jafe-jafe alalam day yokk turam di yokk dégg nga martabaam di yokk ci nit ñi mu defee ni nag loola mooy continuer parce que seytaane moo koy dugal ci yooyu yëpp di ko manipuler dégg nga mu ne ah wa ma adunna man de yaakaaruma sax as-saa'atu ne bis penc qaa'imatun dina taxaw bis penc non yow wax rek eh, du du am de adduna bi évidemment mooy liggéey waay liggéey am xaalis tubaab bi foofu lañ yegg xam nga nga mooy adduna liggéey am xaalis jeex na <clears throat> luñ bëgg a dugg-dugg ci mu ne wala sax wala in ruditu wala man sax su ma wóor na ma ne su ma delloo ila rabbi sama borom hmm. la ajidan na xayran min ha dinaa fa fekk lu baax de ma demee delloo suñu borom danaa fa fekk loo xamante ni lu baax la loo xam ni teraanga lay doon ci man te lépp man mu ngi ko aj ci alal ji nga xam ni moom lay am maanaam alal ji bariwaay bi mu bari bi mën na cee defi pexe ba dajeeg yàlla ëllëg am fa teraanga léeg-léeg nga gis nit ñoo xamante ni jàpp nañu àdduna maanaam amul lenn lu alal mënul am nañu nit bu dem ba toll foofu jàpp nañ ni àdduna loo fi bëgg amal alal rek di nga ko am fekk nag jaam yàlla yemuñu de am na nit ñoo xamante ni alal alal weesuwul seen cati baaraam yi ba di ko romb moo tax ñooñu ñu mel noonu foo leen fekk ku ñu dajal rek bu ñu bëggee ci yow dara dañ lay ger même soxna sax buñ koy labar pour takk ko dañ koy ger ci alal ba am ko boo demee boo dee wut contrat da ngay ger pour am ko boo dee marché da ngay ger pour am ko boo dee soxla kilifa da ngay ger ay nit ba ñu wutal la audience lépp ci alal lañ koy def. mu ne ah man ne yaakaaruma ne addu alaxira dina taxaw wala bu fekkee ne dina taxaw tamit ah man de dina gëm naa ne dinaa fa am yool de mun xalaban aji dellu yaa ngi dégg wala mu delloo foofu danaa fa fekk teranga qaala lahu daal di koy wax saaxibuhu xaritam bi bu huwa moom yu xaaribu xaawiruhu mu ngi waxtaana mu mu ne ko moo yow de ak kafarta ndax dangaa weddi billadi xalaqaqa ci kile bind min turabin ci suuf thumma min nutfatin topp topp ngay dem ci dégg nga lumpu dégg nga maniyu thumma sawaaka ginnaaw ga mu yamale la rajulan ba nga nok nekk aw nit dégg nga nekk aw góor dafa mel ni yow danga danga weddi kooku de mu ne ko nag lakinna lakinna li fi de mooy huwa moom allahu yàlla rabbi man moom man moom mooy sama borom طبعا ولا أشرك دم بوليك بربي سما برام أحدا كن دم بوليك كن من يكون ولولا دخلت ولولا لتيون إذ دخلت بغدك جنتك ستوالبي قلت وح ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله ما يلو صابي الله من لا قوة إلا بالله أمول بن كاتن برول كاتن يلا من يقول لتي أود بيجدو جيسا طوال بيجا وخلور واي نغا كنسا باب واي بابا موكو موكو جاحس لن ينتالي چي سوار بني وقبور بني وحارون رشيد أمير المؤمنين لون دفا أم بيني بسمونه دفا بغنو بوالا كوك برام خم خم بو خامي شاك سوبا دفا يوار دفا فاتلي برامم mu waxee loolu benn waay waaja daal di dem dem ci benn borom xam-xam wax ko ko borom xam-xam bi ne ko waaw d'accord man am problème sax man mën naa ko fekk sax dégg nga di ko jàppale affaire yooyu xam nga may wax ko Haarun Haarun ne ko soxla wu ma kooku kooku daa jàpp ne man maa ko gën Haarun nag xakim la woon buur la woon bu amoon dégg nga batcho nag amoon doole waaye dafa xereñoon daan jëfandikoo xel mi te da daan xool ñi nga xam ni. ñom ñokoy mëna jëriñ ci walu xel jamono ak diin ak yooyu ñu yebal mu yebalaat keneen mu def mom même nono yebalaat keneen mu def mom nono harun ne moy juk wutal bopam ki nga xam mo koy mëna dimbali mu dem ci ben borom xam-xam bi mu ñewé dal di nuyo ci buntu bi assalamu alaykum ñu ne gor gi ne ko waaleykum salaam ne ko kokal la mu ne ko mana amirul muminin mu ne ko amirul muminin kañ nga ko nek bi nga juddo wala avant nga judd bi nga juddo bi nga avant nga judd nga nek ay muy wala bi nga juddo harun tambale di bat bati ndax liko liko borom xalim bi wax ma ko lu doonon sa soxla te dug segul de <laughs> ma ko bëggoon koo xam moy doon sama conseil religieux dimbali ci walu diine ma ne ko xaaral fo ba pare damaa nek ci dar si fimne <laughs> muy muy ñaareelu confirmation bu kay war ni ki moo koy dimbali ginnaaw mu toog xaar ba góor ga jàngale ba pare door ko dalal mu wax ak moom li muy wax ak moom ñu daal di tënk loola liñ ciy jànge mooy li xew ci jamono ji rek sama consor gi ñu ngi ci fi mu nekkan moo fay barki dem sax ba sur jomaya ah, ñu ngi ne siiwa am relation ci autorité Pastef yi nag fi mu ne gars yi téléphone yi am na am na ku dëkk fii de ku wax dut baar boo maytul numéro téléphone am gars yi nañ ko bu yàgg bu yàgg laa wax ne commencé préparer dégg nga circuit bi nag parce que ñele moom jeexal nañ ni ñuy def ba toogaat mooy mooy système li ñuy tuddee toog muy dox réew mi moo tax tabaarakallah du gaaw a defaru de parce que ñëpp dañoo bëgg toog muy dox li gars yi naan toog muy dox te da muy naaw <laughs> te loolu nag lool defar penc du defar penc foog liggéey moo yàq réew mi moo tax boo demee ci kilifa yi jiite réew mi daanaka day am lobby yi lobby marabouti day am ñoo xam ñu ngi taxaw séq la nga am loo leen di sédde ci réew mi baadoole yi di bëgg dee te ba te saay boo xeewee baadoole yi dajale seen alal demaat xëppaat la ko encore loolu tooke la de yàlla nañ ci yàlla musal mu ne ko lu teewaat bi ngay dugg sa tool bi nga wax macha allah la quwwata illa billah loolu la ko wax mu ne ko nag in tarani ana aqallu minka maalan wa waladan mu ne ko in tarani da gis ni ana man de aqallu minka maa la gën a néewle maalan ci doom ci alal wa waladan ak doom waaye nag fa asa xëy na rabbi sama boroom an yatiyani mu dikkeme xayran yiw min jannatika ci sa tool yooyu wa yursila mu yebal alayha ci tool ya xusbaanan aw ngelaw boo xam ne mina samaa ci asamaan lay jóge yoo xam ne bu ñëwee ba ëpp ngelaw la ba ëpp tool bi fa tusbiha day mujje doon saidan kekk woo xam ne zalaqan wu rattax la woo xam ne day mel ni gàncax musu faa meññ aw yusbiha wala mu mujje maa uhaa ndoxama mooy dex ya nekk foofu xawran dal di ñiis te bu boobaa falan tastatia lahu talaban doo mën a doo ko mën a gasaat falan tastatia doo mën talaban sakwat lahu nyal ndox ma mana doo mën a indiwaat ndox parce que ndox mi yàlla moo ko wa uhita mu di pek bi samarihi ci meññante ga fa asbaha mu di mujj neena na ko waxe won yalla defe ko non fa asbaha bu mujj yuqallibu di walbati kaffayhi ñaari tenqam ala ma anfaqa ci alal jimu yoron don ko dépassé nan si man de mbir ma fu jaar li mo defon fi bima jaare fi nangam nangam alal jeb nax nax nax sayna وهي من خاوية مؤجوية طالبة در على عروشها تجربية ويقول مدالدين يا ليتني أكني أخوان من لم أشرك بكالي وما بربي سما برم أحدا كيان ولم تكن تنكل له نيالك فئة وين كريل وين أي وخماني يوخمني ينصرونه من ننكو دمبلي من دون الله كرولي الله وما كان تنكل منتصرا لكني دمبلي من ننكو تخوف وفرع وقت ويجرنا ñu tolloog ci suuratu suratul kahfi aya quarante allah bu ñu ñëwee suba ah mooy daaneel wax mu ne hunaalika foofu al walayatu kon ñu daaneel aaya bi rek hunaalika foofu al walayatu mooy fala kilifteef nekk ak wéeru lillahi ñeel yàlla mi nga xam ne alxaq mooy dëgg te te huwa moom wéeru ci yàlla mooma xayrun moo gën sawaaban ci yool wa xayrun te moo ëpp it uqban ci mujj yaa nañ ko yàlla defal loo tax yonent wax naa bu nit gisee dara mu yéem ko na wax macha allah la quwata illa billah nee na bu waxee lool rek mbir moomu mu gis yàlla dina ko fanq fanqal lépp luy ayib musiba ayibu bët wala ayibu làmmeñ jullit lépp lu mu am bu ko solee mu taaru na wax macha allah la quwata illa billah bu yore oto mu rafet ndax macha allah la quwwata illa billah bu nit amee dara mu yéem ko yéem gim mu ko yéem mën na cee roof cat cat gi mooy askanele gi mu askanele diw nangam te mbir ma jóge ci yàlla yàlla roof ci ayib ayib jooju ji ci yàlla di roof bu bëggee mu mucc ca nag ne ne macha allah la quwwata illa billah rek yàlla daal di koy dàq wala mu wax macha allah rek ba tey baax na incha allah mën nañ taxaw foofu kon ñu ngi toll ci aya 44 ci suratul kafi bu subaa bu ñëwee ñu commencé aya quarante cinq incha allah yal na yàlla defal dégg ak topp lépp luñ ci jàng yal nañ ko dégg buñ ko dégg yal nañ ko jëfe buñ ko jëfe yal na ko yàlla nangul ko nangoo yal na ko ful bu jullit yëpp xàcc incha allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wasalaamu aleykum wa rahmatullahi احمديه هي سنديده الجمل احمديه لا فيزيون فيتور